xamante ne mi ngi mi ngi koy wootee gis nañu sànq moom la ñu tijjee les deux présidents mais d'autres acteurs parce que boo jëlee euh, waa kër Abdoul Mbaye nee nañu conférence nationale la ñu a jàpp moom la ñu def am na ñeneen ñu wax na ñoom dinañu wuyti ci dialogue boobu est-ce que du moyen peut-être pour apaiser peut-être la situation mais dem ci ay élections yoo xam ne dina ubbi. non xam nga apaiser situation moom euh, dañ koy laaj président Macky Sall ñun mosuñoo bëgg ay situation mu a apaiser moom moo jël décision def lu muy def man dama bëgg balaa ñuy ay leneen ñu taxaw si lu mu def te lu mu def lenn mooy solution bi mooy le 2 avril mu dem. ah oui yow il est. non non xaaral ma ñëw rek xam gis nga dafa am ay clause intangible yu nekk si. ji nga affaire bi impasse la ñu dañu nekk dans une situation de. tey man la ko wax léegi ma ne la ñu ngi wax report bi assemblée moo ko def d' accord supposons que assemblée moo ko def est ce que tey yee mu ngeen jàpp ne report am na report élection am na xam ko jàpp xam nga li tax parce que y' a pas de pro defuñu euh, promulgué wuñu la loi y' a un préalable qui un contrôle processus a été annulé. Le contrôle a priori est exercé par le conseil constitutionnel. ñoom la ñuy xaar génne donc fii promulgué guñu loolu maanaam fii may wax ak yow article 31 tel que niñ ko rédigé dans la constitution mooy dox. maanaam maanaam mais moo tax instant bi parce que y' waaw non waaw non exactement moo tax ma ne la fu pourquoi processus électoral bi ko newul alors que la loi fii ñu toll nii dafa ne quarante cinq jours francs et trente jours quarante cinq jours francs au plus trente cinq trente jours francs au moins foofu la ñu war a def élection yi mais lan moo tax ñu arrêté ko moo tax da ngay interroger lan moo arrêté le processus électoral foo ko trouver ngay soog xam lan mooy problème bi li ko arrêté c'est le décret du président de la république moom moo ko arrêté mhm. te sur aucune base légale c'est ça que j'appelle comme tout le monde appelle un coup d'état seen xam nga dañu mën a wax benn affaire gis nga président Macky Sall ba Mali affaire bi amee mhm. dafa ne nañu rétablir l'ordre constitutionnel Niger ba mu amee dafa ne nañ rétablir l'ordre constitutionnel fu mu toll nii on n'est pas dans parce que dafa wàcc totalement mais par rapport au dialogue pour pour ñu wii xam nga no foofu loolu laa la wax léegi demal ne hmm. fii ñu toll lu ñu war a def mooy travailler sur l'état d'esprit du président Macky Sall xam nga travail ci état d'esprit mooy lan mooy mu xam ne si fini. mais il cest jeexal na non attends rek c'est important. jeexal na tamit non non non non li ma leen di wax nii. parce que maa ngi dégg non dafa nang important non c'est c'est très important. billaay c'est doo fi def li fi docteur bi defoon taawu maître Wade de di def benn examen médical lu maître Wade ah. xanaa du loolu nga bëgg rek non non non waxuma non non état d'esprit laa wax waxuma état mental oh, wala psychologique attention état d'esprit bi mooy hmm. moom si boppam lan la bëgg na xam na ne parce que ñu ngi naan way ñu ngi bëgg a proposer lii ñu ngi bëgg a waaw il ne peut plus c'est fini. et la loi ah d'amnistie. il ne et la loi d'amnistie bi ñuy wax kooku su dee dafa war a am li am entre. Oh, mars 2021 loolu su waree am ba période bii nii. su waree am. Hmm. son successeur moo ko war a régler. Hmm. moom mënutul dugg ci processus bi. xam nga fan la def fu mu fu war a taxawee mooy ku ko remplacer ñëw mu jox ko loxo kooku jox ko loxo mu dem. mu def su ko neexee après nag mu def bilan am et cetera ñu ne jaajëf wala ñii ne ñii bañ a tàcc. mais li am solo ngeen xam ko. mooy que ne moom jeexal na moo tax tey fu ñu war a concentré wu. c' mu xam ko ba a ubbi ay brèche ak ay fenêtre pour ay leneen ak leneen. mais da nga d'accordul ci loi d'amnistie bi wala. parce que c' sur des faits sax. mais bu ñu ko waxee aujourd'hui euh, euh, non xam nga loi loi d'amnistie loi d'amnistie moom ku si d' mooy ku xamul luy loi d'amnistie balaa nga si d' accord ngay xam légistique bi lan la lan lañ bind. Mm. lañ ko bindee. ku xam loi d'amnistie nga xam ne ay fait la ñu ngi tudd ay tour mais loi d'amnistie affaire tout c'est des logistique bi moom am solo ni ñu koy bindee formulation bi ndax dañ siy laaxaale ñëpp wala ndax moom dasee bëgg a purux wala ñeneen yooyu yëpp lu jar xool la donc mënoo koo wax si loi si boo gisagul mais par contre kuy ñëw am na injustice yu fi am daf si war a taxaw. Hmm. c'est clair mais kooku kuy ñëw. mais bu defee loi d'amnistie moom c'est fini. non kuy ñëw moo war a régler loolu moom lu mu war a def mooy xool les voies et moyens mu dem. parce que dafa jeex. encore une fois la république moom la moom la ki wax léegi xam nga la république xam nga lu muy signifier hmm. c'est une forme d'organisation dans laquelle le détenteur du pouvoir dafay daf koy exercer à travers un mandat c'est ça la la république tey c'est un mandat lañ ko jox gis nga ñu ngi wax dérogation dérogation bii ñu def dafa lal le le principe intangible de la durée du mandat. moo tax dama leen ne comme da ngeen def dérogation kay mënoon ngeen dem si article 27. très bien parce que dafa wax le président de la république son mandat est de 5 waxul 5 ans mois donc dindi leen ko. d' accord alors Pape mooy ma question parce que mhm. clause d' bi ñoom moom la ñuy tout mhm. temps naan à partir du avril président Macky mënatul jiite réew mi. am na ñuy évoquer même c'est-à-dire je je ne pense pas que en tout cas le président Macky Sall am obsession sur ce sujet-là. Mm. vous savez am na des rencontres très euh, restreintes yu ñu am avec le président de la République je vais trahir le secret parce que le contexte l'impose. Mm. nous sommes au mois d'avril-mai à la présidence avec quelques responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar il n'a pas encore choisi mais il regarde dans les yeux une partie de ses alliés. Uh-huh. ne leen man aw mu problème mandat dama bëgg ngeen xam loolu. ñu xoolaat ko bu baax ci bër mu ne non moi je veux que vous soyez à l'aise man makisal Sall aw ma problème mu mandat. c'est-à-dire. il voulait leur dire a pour un mandat. il a un rapport particulier au pouvoir li ñuy dessiner ak li nekk il faut nit ñi taxaw xool nit ki xool jaar-jaaram xool li mu def. c'est pas n'importe qui le président Macky Sall c'est pas le dernier des acteurs politiques qui viennent d'arriver dafa am jaar-jaar quand il parle il faut l'écouter comme un président de la République qui a le parcours dans l'État et qui sait ce qu'il dit les clauses d'éternité bi ñuy alors léegi moi j'en viens mm-hmm. moi je suis pas constitutionnaliste mm-hmm. j'ai entendu ñiy wax jaar fi ñiy wax jaar fële li ma xam mooy le président Macky Sall nee na moom jeexal na il n'est pas candidat par contre en tant que président de la république gis na lu mun a gaañ réew mi et il doit s'arrêter pour que tous les acteurs viennent discuter loolu laa gis mais il faut ñu changer il un discours qui qui n'est pas de notre temps dafa anachronique ay président Macky di candidat daal 2 avril mais Macky Sall moo gën a xam loolu waxul loolu moom dafa ne ñoo leen ñu wax ci réew mi parce que réew mi dafa am pétrole dafa am gaz les velléités d'engagement yi ma gis ci nit ñi ak ni ñuy cons ni ñuy contester nos instruments qui font notre démocratie posent problème. ñëw leen waxtaan. république dañ koy solal tubéy. Eh, waxtaan bi war na ko war na ko méngale ci bu ngeen ñëwul waxtaan am na yeneen force yoo xamante ne ñu ngi toog organiser pour prendre ce pays. mais ne ay est-ce que war na est-ce que war na ko méngale foofu Pape Mawo comme li ñu dese. non loolu ku nekk mën nga mën nga interpréter mais man c'est pas la première mm. dem na France 24 jàkkaarloog des forces occultes. voulaient mettre la grappe sur notre pays, mais ils se trompent de république. ils ont lamentablement échoué y compris des gens qui sont ici en France ubbi leen seen i gët ngeen xool. mais fu enquête yi toll ci force. c'est ça déet dafa nank rek wax na ko France 24. j'observe moi en tout cas avec attention que la presse française n'est pas amicale avec euh, Macky Sall. léegi mu leer xam kan mooy kan ku nekk fi nga taxaw. ah, ah bien sûr man ki ma àndal muy président Macky Sall du koy fëq nguur du koy xeex di rey deretu sénégalais yi pour nguur su waxee te loolu lañ ko xamal ci troisième mandat bi loolu lañ ko xamal au PDS la renoncé à tous ses mandats ne man bàyyi naa dem naa opposition mhm. dem seeti sénégalais yi gagné mënuñu génneel au bout de vingt deux ans une nouvelle carrière bu mu dajji ci paquet pour être direct pour pour les gens ne répondent pas parce que am na ñoo xam ne non non foofu laa jëm si foofu laa ñu nangu ne son profil ne pas un profil qui va démarrer une carrière de dictateur à 63 ans ça n'a aucun naa nag réew mi dañuy dañuy sàmm di kontaan ci li nga xam ne commencé nañ dégg ay ton yu gën a apaisé yu gën a dal ndax li ñuy wax c'est très simple ñi nekk ci mbedd mi tey suñuy morom lañ ah nous on a fait le choix de nous engager sur la logique sur la logique du parrainage et du mentoring avec des leaders mais li ñuy def ci mbedd mi dàquñu ko quest si quelqu'un parmi eux prend le pouvoir nous on fait quoi on refait la même chose dañ ci mbedd mi taal dañ ñu ko daax wala dañu ëpp fit wala dañu ëpp mbokk ci réew mi dafa nag rek wala dañu ëpp mbokk lañu war a changer Thierno on doit changer de paradigme dañu war di waxee neneen ci réew mi euh. di wax ak dal ak jàmm joxante cër la loi d'amnistie la loi d'amnistie la loi d'amnistie c'est pas la première fois qu'on l'a fait et puis euh. la loi d'amnistie la constitution tout ça xam nga lan la si constitution brûle ton pays si ta loi d'amnistie donc vous confirmez vous confirmez que si ta constitution ñu ngi ci comme ni ñu ko waxee dama ne si ta constitution day tax nit ñi di dee ñuy am ay faat bakkan politiciens yi nekk ci tension mais cette constitution je n'en veux pas je suis libre mhm. une loi d'amnistie hmm. quel qu'on quel puisse quoi qu'on puisse penser sur une loi d'amnistie suñu mënee jox jàmm ci réew mi ah ah mais oui mais mais mais mais. mais est-ce que na ñu naan euh, président dafay daw. Fatou man man gëmuma loolu ça c'était c'était c'était un ballon de baudruche ce monsieur n'est par contre li ñuy jox jàmm li ma wóor man mooy li ma gis ci parti politique yi ni taxawee le gaz et le pétrole les influences internationales ci réew mi ku nekk la nga génnee ci koom-koom jox ko ay candidats. ñu war a jàmmarloo suñu biir fii ci réew mi suñu suñu suñu loolu loolu c'est mon point de vue. parce que jàmm bi dafa mel ne vous loolu insistez sur le mot jàmm depuis de depuis une semaine deux semaines alors que am na yu fi jaar Fatou Abdou des des des des jeunes des dizaines de jeunes yu ñàkk seen bakkan Fatou Abdou jàmm tey jàmm démb ak jàmm ak jàmm suba nay jàmm rek très bien jàmm ci lépp la jàmm ci amunuñu def loo xam ne et puis dialogue bi presse bi daf ci war a bokk ñëwuñ ci ñoom. daf ci bokk ah. parce que parce que parce que am na problème.